te lii ngay dégg fii ay cent pour cent Pikine du dëgg ci ñoom. ba tey foofu ndax dama ay coow. du dëgg ci ñoom. ay am dëgg ci ñoom. bu nekkoon dëgg la dëgg du ngeen ko mu wax. waaw. ah jeex la dëgg li mu wax est-ce que nekkul stratégie. parce que Cheikh na Cheikh Sadbou la dëgg du benn mbët du fooy combat dox naa daanu. Mhm. ku war a wuti ndam. teg waat ne bu fekkee lii amul yàlla naa daanu. ñu woo mu woo ñu jox ñu jox ñu numéro oto bi génn ñu ay vocal leer nijaayam la ko jox nijaayam la ko loo bëgg a xam si boo ñaa jox waxal ak sama nijaay. Oh. waaw sama nijaay jox ma ko ma wax yow. mais après papa dama gis ñoom ñu ànd non booy ñaa dama ne ko chaque jour yàlla xol lay fay. <laughs> bul bàddi kenn. Jules Baldé euh, arbitre boo ñaa kii. <laughs> si mbapatu kër seen buntu kër. moo ko ama est-ce que fekk naa ko. déedéet sa dimanche passé ñëw laa wool si mbapat bi mais bu yéen ñaa war leen a bëri. Mm-hmm. mais Jules Baldé yow waroo bëri ak waroo fexe Ama Baldé ak Boy Niang di bëri. Mm-hmm. mais papa en tant que magu Pikine ak Pikine ni mu nekkee. mag ñi nag mag ñi nag tant que taxawuñu ñun ñun ñu daan bëri. Mm-hmm. waxante dëgg. muy man Baba Diallo. du Bakhoum Paale Diop ah ak suñuy mag ñu fi des toog si kanamu Papa Diop waxante dëgg booy ni booy ni ah, parce que yàlla moo ne bu xol yi àndee mu ñëw bu xol yi ànd du ma ñëw kon Pikine li ñuy def du dëgg ci moom gëmuñu ko mais dañoo gis open press booy ñaa kii di Eumeu Sène ñëw sooq oh, ñëw yéen presse na wut si du loolu presse bi doon ñëw ah, lañ doon wut si rek ne ànd nañu mais bu ñu àndoon yow buntu Pikine la ñu fàq def juróom fukk camion suuf sumee ko ngemb di contact seen biir seen biir waaw. kon préparation bi gisuñu ci benn mbëru Pikine mu ñëw taxaw jàppale boo ñang ci contact. Oh, loolu tax moo ne sóob la sóob la.